kon mbokk mbokki jullit yi Seydina Limaamu ku ko bëgg roy na nga xam ne na nga xam ne Seydina Limaamu modèle bu mat la du woon rek ku dëkk di julli di sa gaax si gi bu àddina bu ñuy tabax àddina du ca bokk déedéet nekkul woon it ku yor kurus rek nga xam ne bu àddina di toj ci wetam du ko yëg wala bu ko yëgee mel ni ku ko yëgul wala du ca man lu dul unhu wala un Seydina Limaamu ku mat la modèle bu mat bu matale ku rafet ak julli bu julli jotee dangay defe defee ne julli rek la nekk waaye bu ñuy tabax àddina loxoom a nga ca biir jiitu sa moom Seydina Limaamu sax moo yar ñi nga xam ne ñoo yeyoo tabax àddina ñoo yeyoo yor àddina moo leen moo te ñooñu ñaar rekk la alxuraan nu ko jàngal alqawiyul amin istajir inna xayra man istajarta alqawiyul amin ak xafizun alim ij'alni ala xazaini al inni xafizun alim ba tey jii li àddina yàqu yépp ba nga xam ne ñun sax rax nanu waaye ba tey jii kuy ut dénk boo ko dénkeeb laayeen ku la xam te yéene la jàmm dina la ne def nga lu baax kuy dénk loo wóolu loo xam ne danga bëgg dénk ku ku wóor ku xam boo ko dénkeeb laayeen dinañ la ne très bien waaye kuy liggéey liggéeylu itim kuy liggéeylu itim boo dalee cib laayeen te muy laayeen ba ba nga xam ne jëfe na te roy na daje ngaak alqawiyul amin daje nga ku am doole wóor ñooñu limaamul max yu moo leen forme ci këram gu tëdd moo leen formé ci ñaari dundam dundam yu sell yamu boole woon boo demee ca busraal mu di nga fa gis ne seydinaa limaamu këram cin daawul fay subaak ngoon ngir dundam àddina bi waaye waaraate waa ngay jolli ca biir ak ca ëtt ba waaraate waa ngi jolli fépp muy dundab àllaaxira foofa la formé ñaar ñii ma leen wax alqawiyul amin ak xafisun alim te réew mi loolu la soxla nag rawatina tey jii ci contexte bi réew mi ñaar ñooñu lay won waaye dama ne réew mi bi du mooy loo kuréelab limaamul mahdiw di wuti ñaar jo di wuti ñaar ñooñu feneen dina sonn de waxuma ka ngir tagg ak bak waaye loolooy li am kon nag xale yi pour tëj maa ngi jéggalu waxtu wi dab nanu maa ngi jéggalu ci toogloo bi ma leen toogloo baal leen maax baal leen maax pour pour tëj tëj maa ngi bëgg a jëmale nag dénkaane ci xale yi di leen xamal ne góorgóorlu leen ci seen toolub diine waaye góorgóorlu leen ci seen toolub àddina bàyyi laay ku am jom la woon ku sawar la woon ku jàmbaare la woon bàyyi laay ku culture liggéey culture culture liggéey dafa sax ci moom dafa cosaanu ci moom demal ca bu saral mu xibbin di fa fekk daan na ànd ak ay maasam dem ci gox yi di sàkku wërsëgu lew waaye bu saral mu xibbin nee na moo leen gënoon a sawar gën leen a nekk jàmbaar gën leen a am jom ten mooy doon seen serviteur moo leen di toggal moo leen di attaayaal moo leen di dimbali te nag moo leen di jiite julli loolu mooy modèle bu mooy modèle jeunesse su laayeen yéen ñi nekk fii ci biir réew mi ak ña nekk ca biti réew ma roy leen ci njàmbaar ak Seydina Limaam roy leen ci jomi Seydina Limaam nekk leen ñuy liggéey àddina ñuy tabax àddina ba pare wëlbati ko tàggat ka ngir seen diine comme ni ko Seydina Limaam wax saabaam yu sell ya def ndax lislaam xamul chômage lislaam dafa jàpp ne benn doom aadama ñàkkul njariñ lislaam gëm na ne kenn ku nekk rek am nga loo mën a contribuer ci lii lii yéwénal suñu dund ci kaw suuf dañu wuutente nag am na ñoo xam ne seen man-man ëpp na leen ba mën na baawaan ba ca ña ca des ñooñu dañ war a boolante ak ñi mel ni ñoom ngir suñu dund yéwén jëm ca kanam waaye am na ñoo xam ne seen man-man weesuwu leen mu ngi yam ci ñoom waaye lu bon bon war na noo mën a jàppale ñiy def ngir ñeneen ndax kat léegi da ngay gis ku investir ci sa sabilillah ngir defar jàkk wala defaraat jàkk wala lu mel noonu ci chantier yi diine kenn du ko ca jàppale ñépp a croiser les bras ku mënu la jël defal loo xam ne ñëpp dañ koy jariñoo demal nga dugal sa loxo ci li ñoo ñooña la ñuy def mu doon sa participation waaye boo mënul loolu yépp diine nee na am nga am na lum la lum la mën a sas mooy nee na waxal lu baax waxal yiw diine nee na boo mënul loolu ba tey nee na téyal saw ay mu yem si yow loolu nag moom la tënk ci xadis bi ne ala kulli muslimin sadaqa qiila wa in lam yajid qaala yaamalu bi yadayhi fa yanfau nafsahu wa yatasaddaq qaala in lam yastati' qaala yu'inu zal haajati al malhuuf qaala in lam yastati' qaala ya'muru bil xayri aw al ma'ruuf qaala in lam yastati' qaala yumsik an ash-sharr fa innaha sadaqa kon nag loolu mooy dénkaane bi xale yi nekk leen nit ñu am jom nekk leen ay liggéeykat ab laayeen tere nañu ko mu takk kurusam ci baatam tere na nañu ko mu takk kurus ci loxoom loolu bokk na ca lañ ca mën a jàng mooy ne loxo boobu am na beneen wuti am na beneen jëfandikukaay bu ci yeyoo ci yeneen waxtu yi kurus gi nag am na waxtoom takkam baat mi nag bàyyi laay ak kuréelam mbaaxoowuñu ñu diwut ay màndarga comme ay ay ay ay bàyyi ma yu ñu runga takk ay màndarga ne fanga fangaaral ay nit yu ñuy utal ay xàmmikaay bokkuñu ci lool bu leen ci dugg bu leen ko toppandoo bu leen def suñuy foto ci seen seen seeni dënn bu leen ko takk lu ngeen ñu bëgg-bëgg def leen ñu seeni xol roy leen ci lu baax li ngeen gis ci ñun <clears throat> doomu aadama ju ñuy utal xàmmikaay xaw xawlan min rabbi moo tax ñun gis nga pureté suñu xàmmikaay mooy pureté mooy li nga xam ne moo set sell lu ca tax rek bokku ca lu ca tax lu ñuy gis rek ne wuute na bokk sax mooy màndargam pureté ñu loolu mooy suñu xàmmikaay te kuy dugg ci biir suuf ku ne loo takkoon dinañ ko teg loo soloon leneen dinañ dinañ ko summi solal la lu weex tal laxas la dugal la ci biir suuf bàyyi lay ne def leen ko ba bala ngeen de kon nag maa ngi jéggalu encore une fois jël naa seen temps maa ngi leen di jéggalu bu ma sañoon waxtu euh, kàddu gi di gudda defoon naa trente minutes rek laay wax waaye yéene ji rek la ak xerte yàlla na fi yàlla boole bàyyi ak jàmm ñu yàgg koo fekk fekk gu ànd ak tal ak ak man ak rafetu fekki win yàlla bàyyi fi kilifa yi yàlla bàyyi fi kilifa suñu xalifa Seydina Abdullah kii raay la wéttal la barke la xéewal la ci suñu biir yàlla na ko yàlla bàyyi ci suñu kanam defal ko wér ñu ñu yàgg ci ginnaawam ak njabootuk Seydina Limaamu kuréelab Seydina Limaamu yal na yàlla dolli yëkkati diinay Seydina Limaamu yal na yàlla dolli aar diinay Seydina Limaamu yal na yàlla dolli xéewalal way gëm yi yal na yàlla dolli ndimbal yàlla saxal ci ngëm yàlla saxal nu ci ngëm yonentam Seydina Limaamu bu dee di ñëw yal na nu fekk ci loolu yal na nu ko deewaale yal na nu ko dekkiwaale te yàlla gërëm nu dajale noog Seydina Limaamu ak Seydina Isaak njabooba njaboot ga wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin